à ce niveau. donc sur autorisation de le Premier ministre, je vais m'exprimer sur ces questions. Nous l'avons euh, au niveau du dépôt à pour se terminer au Liberté Le constat a général. 19 stations sur 23 ont été des systèmes, le système de biétique euh, détruit, euh, toute la signalisation le long du corridor vandalisée et détruite. Euh, au niveau des stations aussi, il n'y a plus de vitrage. Aujourd'hui, les équipes de Ajroute et CETUT sont en train de faire l'évaluation avec les huissiers commis à cet effet pour nous donner exactement euh, le coût donc, des dommages subis. naturellement, cela va théoriquement impacter sur le délai de livraison, puisque l'engagement était de livrer le chantier dans le dernier trimestre de l'année 2023, mais au premier tiers, au mois de, soit de septembre ou au mois d'octobre. Aujourd'hui, les instructions données par M. le Premier ministre et de livrer, euh, donc, sont de livrer les travaux au plus tard Cela veut dire quoi Cela veut dire que les équipes vont travailler davantage pour relever ces défis, même si on doit travailler en mode euh, progressif et livrer les chantiers effectivement progressivement le temps que les équipements détruits puissent être recommandés. Nous sommes dans cette dynamique et nous pouvons nous engager, ministère en charge des infrastructures, à travers la maîtrise d'ouvrage, euh, CETUD et la maîtrise d'ouvrage déléguée, et les entreprises en charge des de pouvoir réaliser effectivement cet objectif avec Dakar Mobility qui est en charge de l'exploitation du BRT et les délais seront respectés tels que en tout cas solicité euh, par monsieur le Premier ministre. waa jërëjëf ci ndigalu Premier ministre mën naa tontu ci laaj yooyu la di fàttali euh, ñu ngi tàmbalee visite du corridor BRT bi fële ca Gadaye euh, Guédiawaye ñëw fii ba Liberté 6 gis nañu yàqu-yàqu yi am ci yoon bi yëpp berte maanaam ñaar fukki station ak ñett la am sur les ñaar fukki station ak ñett mën nañu fukki ak juróom yëpp maanaam dañ ko yàq yàq boo xam ni mënu yox sax nu mu toll amutul verre boo xam ni am na fa am na système yu bëri yoo xam ni yàq nañ ko les feux maanaam feux de signalisation yi yëpp la ñuy yàq ci yoon bi loolu nag fi ñu toll ministère nga xam ni moo yore infrastructure di liggéey ak ak AGEROUTE jën nañu ay huissier ñu mën def évaluation impact bu yëpp fii léegi ay fan yu néew incha allah rabi daañu am maanaam résultat boobule. waaye lu ci am solo mooy délai bi nga xam ni président de la république joxe na ko dañoon BRT fii léegi mois de euh, maanaam septembre octobre daañ ko jox askan bi ñu commencer ci dugg waaye yàqu-yàqu yi nga xam dafa am ci station yi surtout. xëy na mën na amul laal délai bi tuuti waaye lu ñuy fexe ak entreprise yu liggéey délai boobu la du ñuy fexe ba génn du ñuy génn décembre bi te maanaam commencé wu dox même bu fekkee day daw ndànk ah ñu xool nu ñu ko mën a organiser mais état bi jël na engagement pour que au mois de décembre lu ci lu mu yàgg yàgg yàgg au mois de décembre BRT bi daw jóge fële gàddaay dem fële ci Petersen war a yóbbu ci toll na trois cent mille personnes. sur une distance de dix huit kilomètres loolu mooy lan mooy fexe dem beeg dikk bi diggante Dakar euh, ba Guédiawaye euh, mu gën a yokk euh, maanaam ci njëriñu askan bi.